أتيتني رضي الله عنا صلى الله عليه وسلم ما هو آله جزى الله عنا سيخنا وسيده عنا بآمين ورضي الله عن سيق التجان ومن لنا إليه وسيل الكاذب والخمم خاطبة صب علينا إلهي أبو العزم وكل من طلبوا صالح والهادي لسبل المكارم صدقت على ما خلت في ووالدينا يا ربنا رب مسلمين إلهي بقوة وسيلتي قتام النظام للولاية جملة حين تجل خالي وهل يدن داء أقل جوى هل له يعطيني مراضي ورحمتي وما سلت أرجوها من الله وعده وإن لم أنا الآيام بابت عزتي وعدت وأنت الوعد عندك صادق إجابة دار ذتباع وذلتي إلهي فاحف الوالدين ذنوبهم كذلك يا رحمن كل المصيقة كذلك إخواني إلهي جملة ومن ينتمي ربي إلى خير ملتي وأزكى الصلاة الله ثم سلامه على خير خلق الله من خير سميتي مع الآل والأصحاب ما صغى صائق وما قال ضاع يا إلهي لسدتي اللهم يا من أظهر الجميل وسطر الخبير ولم يعز بالجرير ولم يأتك سترا ويا عزيم العفو ويا عز التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين برحمتي ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل سقوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مقيل العذبات ويا مبتدع بنعم قبل استقاقها يا ربي يا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي أسألك ألا تسوي قلقتي ببلاء الدنيا ولا بأسباب النار اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا ضليل كل متحيرين ويا قياس المستقيسين ويا مخرج كل مخصونين أغثني توكلت عليك يا ربي قضيت فرضيت فوضت أمري إليك يا رصاق يا فتاح يا باسط وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عليه بحق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاطب لما سبق ناس بالحق بالحق نور كلماتك وصف أسرارك صلاة تاسق بها أقدامنا في الكرامات وتنفو بها أعلامنا بين السادات وتمنعنا بها الأنوار والأسرار والنفحات والفيوضات والبركات والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله صلاة وسلاما وبركة تناسب حق قدره ومقداره العظيم عندك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين kàddu gi nag du gudd ndaxte li ñu waroon a wax cant gi ak gërëm gi Mansour Niang jàllale na ko ba macha Allah kon nag li ñuy wax rekk dañuy wax ci turu ab naaw xadara tiijaan fii ci section Mbàkke ndaxte bi yàlla dogalee sëriñ Fata war a ñëw fii dafa am fu mu jaar ci oustaz Babacar Ñang bu asfiyaa yi la jaaree ñu di ko sant bu baax a baax di ko gërëm ba yàlla dogal section bi samp fii ñi ci war a jàpp ñépp jàpp nañ ci waaye nag fas lu mu daw daw du tee ñu ne ko ali jeunesse tidiane bu Mbakke ak Touba ak li ko wër ñi ngi leen di gën a tàllal loxo ndaxte mbir mi macha allah mais waroon naa gën a yokku fii ndaxte diggante Mbakke ak Touba nañ wax réseau de Diourbel sax ak li ko wër li fi nekk ci ci bu ñu bàyyi woon nëbbatu gi génn kon bu Seydina Cheikh wootee ñu xam ne Mbakke taalibe tijaan bari nañ fi am lu ma waroon a jiital te fàtte ko di jiital ci cant gi ak ngërëm gi sëriñ Babacar si Mouhamadul Mansour ak famille maam Cheikh Seydil Hadji Malick bépp di wax ne naal yi mu naal ci tarixa yi ak ci diine ji yàlla na ko yàlla kàttanal mu àggale lépp ba naal ay naali boppam di ci teg sëriñ Muntaxa Mbakke Basiir moom ak famille maam Cheikh Ahmadou Bamba yépp ñi ngi leen di ñaanal ñoom it yàlla kàttanal leen ndaxte suñuy waajur bu ñu daan dem Tiwaawan di jëli tur daayira la leen kilifa yi daan wax dañ naan leen yéen ñi nekk Mbàkke bala ngeen a bant dem leen ci waa kër maam Seexul Xadim yi ndax ñoom ñooñu nekkal foofa ñu nit ñoo leen nekkal fii yàlla dogal na ni loolu ñi ngi koy jéem a doxee fépp foo xamante ne kilifa yi daanañ fa dem même buñ ko matewut timit ñu ngi koy jéem li ñuy wax daal mooy am naaw xadara tiijaan ñi ngi tàllal ñépp loxo di wax ñu jàpp ci liggéey bi di ñëw fii tey ci délégation bi ma àndal mu takk lool guddi na jarul ñu jim ci turu monsieur le ministre monsieur le maire galo Ba mu wax ni ñu xadara bi nga xam ne bi am na mbàkke te ñun ko daan def at mu jot mu kay fekke ñu ko ci ñaanal muy yokk am yokkute bu mag a mag gis na ñaan yooyu ngeen ko daan defal mi ngi leen ci sant bu baax a baax di ci sant waa Mbàkke yépp di ñaan lii nga xam ni def nañ ko fi ca suba ba léegi ñaan yin fi def yépp muy ñaan yoo xam ni yàlla danañ ci defal xéewal yu mag a mag ñi ngi ziyaare Chérif Amsa Tijaniya vraiment loolu moom bëggoon na fekkee waxtaan bi mais ku nekk xam na ni obligation yi mu am ak li nga xam ne lii mi ngi koy doxal ci réew mi mu metti li ko lool parce que fekkewu ko wante mu ne nu ngeen mën di def na ngeen dem teewal ma foofu saafonte ak ñoom santal ma leen santal ma tarixa tiijaan yëpp li nga xam ne li ñu ngi koy def ci biir Mbàkke te yàlla def ko muy maire bi suñ boroom dénk ko dëkk bi tey jii muy ñëw di ànd ak yéen ci lii nga xam ne lii yéen a ngi koy def fii muy mbiri lislaam mbiri yàlla muy xadara boo xam ne bii vraiment senegal gi yëpp ñu ngi koy déglu mu leen ci sant bu baax di rafetlu jataay bi nee leen lépp lu ngeen xam ni yéen a ngi koy def te yàlla def mu nekk ci bopp dëkk bi luñ fiy def rek moom mi la war kon fi mu toll nii euh, wax bi du gudd euh, sant na leen bu baax a baax sant xale yi jigéen yi xale yi góor yi mag ñi ndaw yi di sant imam di gis itam fan yi tiis bi nga xam ne bi dal na ci tarixa tiijaan muy loo xam ne lii mi ngi koy bokk ak yéen mi ngi koy ñaan yàlla ñëpp ñi nga xam ne dañ fee bàyyi ko suñ borom xare leen àjjana mi ngi ñaan itam li ngeen xam ni moom ngeen di bébéb muy seen déplacement yi nga xam ne day am ca ndakaaru ci mois de mars te ma dégg léegi ngeen koy wax daan ko jottali bu baax a baax te dana ci def lum man te loolu mbiram la tey jii fu délégation di jóg di dem foo man di nekk ci senegal war na délégation bu Mbàkke bu Jurbel ñu ràññee ko ci lool te dana ci taxaw bu baax a baax a baax kon maa ngi leen di sant bu baax di leen sant di leen ngeen ñaan itam ngeen gën koo ñaanal bu baax ñu ngi nuyu xalif général de Mouride sunu baay sëriñ Muntaxa Mbàkke moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla ñu ngi nuyu tey siyaara sëriñ Omar Tandian di ko ñaanalit moom yàlla sàmm ko wattu ko aar ko moom itam mu ngi liggéey liggéey bu mel nii bu am solo ah sëriñ Abdou radiyallahu taala anhu moo ma taajoon taaj ko boole ñu ci cadre liggéey bii fekkoon na moom mu doon liggéey ci ay xadaraat ñëw wax ci sëñ Abdou ne ko daf ko bëgg a dajale sëñ Abdou ne ko jiituma rekk dem boole naa laak fataa ngeen ànd liggéey kon sëriñ Omar ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siyaara ñu ngi lay ñaanal yàlla balaa yàgg incha allah dinañ ñëw Jurbel ànd ak yéen ca liggéey ba fexe ànd ak mbokk yi ñu boole ko muy benn ba nuñ ko bëgg a defee ñu defee ko noonu ñu ngi nuyu sëriñ aas kànji mi nga xam ne teewaayu sunu waajur sëriñ Habib kànji la teewee ñu ngi nuyu ñu ngi siyaara sunu baay Modou géy Tidiane ñu ngi koy nuyu ñu ngi koy siyaara ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm baay Modou Gueye lii seen ndam la ndax bu ngeen taxawutoon ci tariqa bi ndaw ñi duñu màgg ba am yéene taxawaay bu ni mel yow ak Baye Sowro Kebe ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara ñu ngi leen di sant noo ngi leen di gërëm gàmmu gi ñu annoncé ñu ngi ñaan mbokk yi booloo bii li muy jëriñ mooy xew-xew yu mel noonu bu amee na ñëpp takku bañ rekk waaye ku nekk booy dem sax donte 1000 francs la nga participer ko dimbalee ko sa ay mbokku taalibe daje bii loolu lay jëriñ bennoo gu jur jëriñante ak dimbalante ak jàppalante sayyidina wa mawlana muhammadin nabil ummi wa ala wa ashaabihi wa man ixtafa asaarahum ila yawmi din wa radiyallahu an ilqutbi almaktuumi walbarzaxi almaxtuumi xaatimi l awliyaai wa imaamihim wa mummidihim mawlaana abil abbaasi ahmad bna muhammad saalimi atijaani asharifi alfaatimiyi qudwatina radiyallahu taala anhu wa an jamihi xulafaihi wa muxadamihi ajmaina bokk yi ci kàddu yu gàtt yoo xam ni dañ koy tënk jëme ko ci mbooleem ñi teew waaye nuyoo yi ak ziyaar yi dañ ciy jiital sunu sëriñ bii toog ci sunu wet taxiyatan xatiratan maqbulatan ila cheyqina hada cheyqun mubajjalun muaddamun mukarramun xafid ibni cheyqina abil abbaasi ahmad tijaani Chérif Hamza At-Tidjani nuxayyiika taxiyatan min cheykhina wa xibbika almahbub mawlaaya muhammadil mustafa si al amin wa aydan taxiyatan min xalifatina wa walidina wa cheykhina al mahbub al xalifati al aam li taifati atijaniyati mawlana cheikh al xalifa abi bakrin si muhammadin al mansour xafisahu laahu wa raahu wa li jamici eh, ixwaanihi wa usrati almalikiyati jamian taxiyatan chamila wa taxiyatan mubaraka maa tawxiirin wa waqaarin wa taadimin laka ñoo ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp ziyaare yu tedd nuyoo yu tedd nuyoo yu ànd ak wegeel yu ànd ak ñoŋal yu ànd ak màggal jëme ko ci sunu sëriñ bii toog nga xam ni yellul ñu toog ak moom ci kaw waaye ndigal la mu may ñu ko ñu toogandoog moom ci kaw fa tabaarakallaahu ñu jox ko nuyoo xadaratul malikiya ba ñu bàyyi ko yépp ci ndigalu ki ñu fi toogal tey muy sëriñ Sidi Ahmed si al amin yàlla dogal mu waroon a teew waaye ngànt dab ko moom ak magam sunu sëriñ di Seex Muhammadul Moustapha Sy Al Amin ñu am ngànt ngànt dab leen nekkuñu ci biir réew mi waaye ñun ñi nga xam ni ñooy seeni ndongo ñu yebal ñu rekk ñu teewal leen teew boo xam ni teewu euh, mën naa wax ni misaaliyan rek la ramzan lahum waaye xam nañu ni mënuñu leen a mënuñu leen a wuutu ci jotaay ndax lisaanuhum afsaxu min lisaanina wa kalaamuhum ablagu min kalaamina walakin lil yàlla dogal rekk ñu sës fa ñëw wuutu leen ci jotaay bi kon ab na awul xadara bi féete tey ci mbakke ñu ànd kook sunu doomu baay bu tedd bii nga xam ni ndigal li moom la ko mawlaaya sëriñam bu tedd ba sunu baay bu baax ba sunu sëriñ bu tedd ba rahmatullahi alayhi di sëriñ Abdul Aziz Al Amin tegoon ko ci loxoom mu ànd ko ak njaboot gu tedd gi mu ko àndal sëriñ bi bind ko bi yadihi abnaul xadara atijaniya loolu nag tey mooy law ci àdduna bi yépp ndax moom sëriñ bi nangoo naa ci sëriñ Sidi Ahmed si al amin mu ni wéy jur wi dafa ni xadaraat yi mooy contribution moom ci liggéeyal tarixatu tijaniyat dëgg la moom sëriñ bi li mu liggéeyal tarixa bi kenn mënu koo xam kenn mënu koo wax kenn mënu koo takk waaye lii rëms la rek ci ñu xam ni kaddu nitu yàlla du dellu gannaaw amaaman amaaman kon see Mouhamadul Fatah ñoo ngi lay nuyu ak njaboot gu tedd gi nga àndal yëpp waaye nuyu nag tey ñii ñu fekk si man ak Cheikh de Tidiane yi jóob mii ma sëriñ bi booleel ak Cheikh mën suur Seck mii ma sëriñ bi booleel ne nañu ñëw fekk si Cheikh Mouhamadul fataax ak alxaaji Pap Silla sunu rakk sunu jarbaat ñu ñëw fekk si abnaawul xadara yépp ànd ak ñoom ci jotaay bii tey Mbakke ñoo ko xewle autorité yi ñëpp wuyu si leen chefs religieux yi ñëpp wuyu si leen waaye ñu jiital ci rekk ci nuyoo yooyu ak tatagal yooyu sunu jur di se Mouhamadul Muntaxa Mouhamadul Bachir xalif général des Mourides ñu ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla may wér yàlla na ko yàlla defal tawféex tey ci zone bii ñu ñëw euh, ci goxam la waaye mag ñi seen liggéey moo yaatu ba kenn ku nekk fa nga nekk moo xam nga bokk ci tarixatul muridiya walla nga bokk ci tarixatu tijaniyatu wala nga bokk ci tarixatul xaadiriya wala yaa xam tarixa boo mën a bokk fa nga nekk rek nga am ndigal di doxal kon tey fii ngeen nekk ndigal moo leen samp ngeen ànd ci dawaayir yépp nag monsieur le maire mu ngi nii toog tabaarakallahu teewal monsieur le maire Hadji Gallo mu jotal kàddu yu am solo yi mu jotal ñu sant ko bu baax ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla defal tawfiix ba li mu bëgg ci gox bi ak li tax ñu jox ko ko yàlla na ko ko yàlla mottalil bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu al muy imaamu ratib di imaam Cerno Yaxya Aan di ko ziyaara bu baax a baax fa tabaarakallaahu di nuyu sunu waa kër maam yu tedd yi nga xam ni mën nañu wax ni tariixa bi su euh, demee ba àgg fi mu àgg fii ci Jurbel ak li ko wër ñoom seen tànk ca biira biira biira waa kër maam Cerno Kanji waa kër e, sunu baay sunu maam Mbacke Tanja te tey sunu baay bu baax bii di alxaaji Omar Tanja toog e, ak waa kër waa maam Atumaan Njaay atu Omar Njaay Atumaan ñoom ñii ak ñi ñu bokkoloon liggéey bi ñoom la yàlla dogal ñu leeral mbooleem anwaar yi nga xam ni mooy naasiril xaqi bil xaqi bi nga xam ni moo ngi jib di leen ñaanal yàlla ñi fi desani ci usra yooyule muy usra njaayeen di usra tànjan di usra kànji di yeneeni usara yi nga xam ni ñoo ngi ci biir Jurbel ak li ko wër ñu ñaanal leen ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla fay yàlla na yàlla guddal seen fan tabaarakallaahu ñoo ngi kontaan ci seen teewaay wéttali bi nga xam ni ñëw ngeen wéttali ko ndaw ñi ndax nii ngeen ko defee daan defee ak sëriñ Abdul Aziz Al Amin nii ngeen ko daan defee ak mag ñu baax ña tabaarakallaahu ñu mën cee seede lu bari waaw ñu mën cee seede lu bari sëriñ Tànja xam na li may wax ay njabootam ña nga ci sunu ëtt daa iman ñooyu toogandoog ñoom ca jàkka ja ca daara ja lu baree bari mën nañ ko cee wax kon loolu am na lu muy firndeel fa tabaarakallaahu e, ñu ñaanal leen yàlla njaay yàlla na yàlla fay leen yàlla na yàlla taxaw leen yàlla yàlla suturaal leen bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama nuyu mboolem dawaayir yi nuyu mboolem dawaayir yi dawaa dawaayir yi nga xam ni wuyusi nañu waaye surtout jigéen ñi ñoom it ñu nuyu leen bu baax a baax ak sunu waa kër maam yu tedd yooyule nga xam ni ñoom it seeni délégation ñëw nañu fii ñu toog nuyu siñu muy waa kër maam Cheikhul Khadim mboolem li ñu fiy naan wax nañu ni ñoom ñoo ko indi muy wàllu ndox muy wàllu kafe ñu ñaanal leen yàlla yàlla yàlla fay leen ñoom ñépp ñëw nañu fii ñu toog nuyuñu saafonteeg ñun ci ay délégation yu jëm yu limu yoo xam ne ñoom lañu fi teewal bokk ñun xadara bu tedd bii te nag xadara bii ku ko fekkee fajug aajo biir la ak bitti fajug aajo biir la ak bitti bil xadaratayni xabantum ahla tijaani siwaakumu bi xuduril badri xadd naa kooku nag beneen affaire la kon bil xadara tey nii la mhm. mhm. lu mu wax mu ni yàllaahu day ñaan de xam nga wërsëg du ci nekk du ci poos kese du lu ci poos kese moom wërsëg wa muy ñaan du wërsëgu poos waaw kay xadara yooyee mu wax mu ni yàlla maa ngi lay ñaan nga wërsëgal ma ma mën a bokk ca ñaari xadara yooyee taqoo ca ndax laazim lawazimaha taalibiha min almanafixi fi dunia wa oxrahu kon farsux luzumahuma yemul ci àdduna kese waxul tey mu jeex ilal mamaati xam nga nag la cay affaire bi nag mooy li nga mu wax noonu mooy al ixlaasu te mooy sellal gi waaw ok xam nga nit mën naa dugg ci mbir te du ca boole ak cellal moo tax lépp looy dugg bu sellee nga am ca la nga bëgg ah al ixlaasu kon lu ama ama am solo la ah bil birri wal ixsaani bil birri mu ànd ak nag bil birri wal ixsaani ndax mbaax gi nga ciy wut sell gi moo la ko mën a may rafetal gi al ixsaanu bi nga ci mën a wut sellal gi moo la koy mën a may amal ixsaanu fa xaala man man daraax an taabudallaha ka annaka taraax in lam takun taraahu fa innahu yaraaka ok kon wasifa ak li ma doon wax loolu mooy Maodo dafay ñaan farzuq luzumahuma xam nga ñaari xadara yooyu le nga xam ni la ci biir ko kenn du ko firi déedéet ku ku moom ku ko firi mm, waaw mooy loolu danga koy raay ci kaw rek bàyyi noonu la ca biir nag la ca biir ñoo koy xam maa fii fii la ca biir ña biir ñoo koy xam xoolal salaat al faatixi ci boppam yenn saa yi nga gis ci internet bi ñuy conteste mag ñi ñu ni salaatal fatihi yonent bi bàyyiwu ko fi woon salaatal fatihi bidaa la salaatal fatihi nangam te salaatal fatihi borom tarixa bi dafa wax ni law kuntu law xultu lakum xaqiqatan waxidatan min xaqaiqi salaatil faatixi la afta akaabiral xaarifiina bi xatli bi xatli la wax <laughs> law bayyantu lakum la wax law bayyantu lakum waaw su ma leen leeraloon tuuti la wax tuuti xaqiqatan waxidatan min xaqaiqi salaatil faatixi tuuti rek tuuti ci salaatal faati ci xaqiqa bi la nga xam ne moo nekk ci biir mu ni kon boroom xam-xam yépp dinañu ñëw dagg sama bopp man Seexu Tijaani sërif nee na ba léegi eh, boo xoolee salaatal faatixi li ci genn wàll gi yépp ci ismilal aazam lay dugg kon ñoom ñoom ñi ñu indil salaat al fatih moo tax sëriñ Babacar Si nee na ñun mënuñu leen a fay ñoom moo tax innal wasifata innal wasifata kon nag bokk yi daayira yi neex na lool de sañse yi rafet na lool de mbaxane yi rafet na lool de kurus yi rafet na lool de oto yi rafet na lool de waaye xam nga luy taxawal mbir mi mooy géewu wasifa bi amal wasifatu mhm. mhm. waaye innal wasifata xam nga lu tax waxal àggaleel loolooy affaire bi parce que xam nga Maodo bi mu tabaxee ñetti zaawiyaam yi benn ba ca ndakaaru benn ba ca tiwaawan benn ba ca ndar dafa ne féeg ñoo ngi fi wasifa sama xel a ngi dalandi ci senegaal moo tax gis nga réew mii ku ci bëgg a tuur leneen lu dul ndox mu sedd ndox mu tàng ma ci sa kaw lay këpp ndax mag ñi dañ koo lawraataale maam Abdou Aziz radiyallahu moo ko daan wax moo daan wax ni jaww ji jaww ji nga xam ne mooy jawwu Sénégal li fi jib ci ay salaat al li fi jib ci jawharatul kamal li fi jib ci astaghfirullah li fi jib ci alquranul karim li fi jib ci laa ilaha illallah koo xam ni dem nga bay yëg ni jaww joojule yaa ngi ko bëgg a puseeral sotti ca ndox mu tàng jàppal ni ndox mu tàng ma bu ñëwee ca sa kaw lay wàcc ndax mag ñi dañ koo lawraataale moo tax mbokk yi nañu ànd ñun ñëpp topp mag ñi topp seen joxañ seen joxañ nag mooy joxoñu yàlla ci rasulullahi laqad kaana lakum fi rasulillahi joxañ baa ngi noonu bokk yi maam Seex Alxaaj Maalik daf ne woon Seexu Tijaani yi mooy sama sëriñ waaye royloo wuñ ma ko ñu ni ko kuñ la royloo mu ne rasulullahi kon la maam Cheikhul Xadim liggéey la maam Cheikhul Xaaju si liggéey la maam la mag ñu baax ña mu nekkal liggéey muqaddam ya seex ya ya ñu liggéey ba taxawal ko bokk yi ñun loola dañoo war a ñëw dëgëral ko moo tax seen ñaan yépp fa mun yetu haasal abdi antu miita ala tariqi cheyqihi adqalta gis nga laazama la wax laazama maa laazama xatta xatta naa laa min rabbihi nag la wax min min rabbihi waaye kenn rek ko ko am nag maa naa lahu nawaala mu idaafa ca nag fa mummi di ndax moom la soxla moom la soxla moom Babacar Si fa la bëgg a jëm fa mummi di kulli awliya rahmaani ñu ni ko kooku mooy kan ahmada tijaani abil abbaasi ahmad tijaani ndax lahu faydun yafiidu xamiima kullin kooku moom fa maa baxiyal kiraamu wala li kii baax na kii bon na kii saay-saay la kii wéyu la kii borom alal la kii borom askan la tariixa bi xamul loolu faydu cheikh xamul loolu ku ñëw rek mu tooyal la ba nga tooy mu jókkati la ñépp teg sa bët lahu faydun yafiidu xamiima kullin fa maa baxiyal kiraamu wala li am xaqan nag xaqan xaqan hada al wirdi saalikihi mën naa lahu naa la ajran walbarsaqul maxtuumu matniya aqtaabil ilaahi bila raybin المؤمنون الممسكون جيش من من الله في نصر وتمكين جزاكم الله خير ما شاء الله loolu loolu loolu mooy loolu mooy xadara bi nag bu ko defee bokk yi ñun ñëpp rek ñu tënkuwaat ci li fi mag ñi bàyyi lii dafa bokk ci li fi mag ñi bàyyi mi ngi fi woon de gis nga sëriñ Abdul Aziz Al Amin vision ci kër gi ci tariixa bi moo yéeme xam nga xadara mu ngi fi woon waaye nag mu ni nag dama bëgg nag ngeen organise ko nag cest à dafa am stratégie bu mu bëgg a doxal te mooy dafa yëg ni jamono bii ñu toll jamono ndaw ñi la te ndaw ñi dafa am lu ñuy royi te la ñuy roy bu ñu yégee ne xumbeel la te xumbeel ba jëmul ci yàlla mën na la a indil gàllankoor te yonent bi sallallahu alayhi wa dafa jàngale wax ni baat bi gën man ma di ko wax ak ñi ma jiitu woon di ay prophète benn baat la moo ci gën mooy kalimatu laa ilaha illallah ndax nee na bu ngeen demee ba seen xol xumaag seen ngëm yàlla dëgër ngeen bëgg ko yeesalaat mu ne bu boobaa maa ngi leen di delloowaat ci kalimatu laa ilaha illallah bokk yi boobu moom lañ doon jooyal fii ci ngoon ba léegi génnee bi nga koy génnee la maam abdul aziz radiallahu taala doon wax ni zikrul ilaahi lil xuluubi xuutu fa in lam ta'is bihi fa hiya tamuutu kon ndeketee xol am na lu koy dundal li koy dundal mooy zikrul ilaahi zikrullaahi boobu nag amul benn bu ca ëpp laa ilaha illa allaahu nga pare julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa bi ay siixatin nag waaye yow mi nga xam ni nag yaa askanoo ci tarixatu tijaaniyatu cheikhu tijaani wax la ne la maa ngi lay jox salaatal faatixi salaatal faatixi boo ko jëlee baat boo ci jël boo ko delloo ci alquran fekk ko fa te salaatal faatixi ak salaatu ala nabi bi seex fataa tëgg bokkul bële day am wasallama tasliman te salaatal faatixi man nga ko jàng ba mu jeex doo ca gis wasallama tasliman salaatu ala nabi nag di nga ci gis wa sallama tasliman bu mu mën a doon waaye salaatal faatixi ba mu jeex doo ci gis wa sallama tasliman ndax du lu nit tëgg Cheikhu Tidiane nee na bi ma koy jot nee na boo ko wëlbatee nee na muy salaatal faatixi sa ndeyjoor nga jëmee ko sa càmmoñ muy salaatal faatixi nga juutal ko muy salaatal faatixi bu taxaw nga wëlbati war ko muy salaatal faatixi bu taxaw loolu nag eh, mag ñu baax ñépp yëg ni salaatal faatixi min anwaaril qudsiyati la fa mu bàyyi ko di ay di ay leer di ay tedd nga ñu jël ko mën koo jariñoo pour mën cee laabal àdduna bi kon bokk yi taxaw leen yéen njaboot gi yéen ñépp di jàng salaatal faatixi di jàng jawharatul kamal di def seen zikru laa ilaha illallah waaye fonk seen balaa nu fonk julli ji ca jàkka ja bokk yi nitu yàlla yi foofu la ñu rawante ku bëgg àgg ca yàlla fexeel ba ñemeel jàkk sëriñ Abdul Aziz Al Amin nee na nee na dafa toog radiallahu taala anhu nee na fonk jàkk ji lool booba zawiya ba lay jullee ji nee na mag ñi ñëw ci sëriñ Babacar si nee na di kañ sëriñ Abdul Aziz Al Amin ci sopp gu mu sopp jàkk nee na Babacar si radiallahu anhu cheikhul xalifa ne ko booy demati del jullee ca gannaaw xam naa ni doomu Babacar Si day sëtu Seydil Xaaji Malik kenn du ko tere jàkk waaye cat lay daw pour feeñalal rek ne la li ngay wut yow yaa ngi ko mën a amee ca sàppe sa wala yaa ngi ko mën a amee ca mbalaanu wasifa ba te mooy imma kii wut alal wala kii wut maqaama wala kii wut wilaaya wala kiy wut àdduna wala ku mu mën a doon moo tax am na benn bis ku mus sa ñëw ci cheikhul xalifa di ko ñaanloo benn palaas bu mu bëgg a toogee ndax ka fa war a toog bu fa jógee mu toog ca sëriñ Babacar ni dënn ni dënn ni dënn tontuwu ko ca ñaan ga sëriñ Abdou nee na ñu ni ko waaw tee ngaa jóg dem ba beneen yoon mu génn góor gi ne leen li tax ñaanaluma ko loolu muy ñaanlu su ma ko ko ñaanalee dina rëy def ñett te bu boobaa addunaam yàqu allaaxiraam yàqu ñu ni ko ban ak ban mu ni dina rëy a julli ji ca jàkka ja bokk ca sàppe sa dina rëy bokk ci daayira yi dina rëy toog ci mbalaanu wasifa te bokk yi lii ku ci rëy a toog yow fooy toog ak fooy dugg ak koy toogal jàkka ji daayira yi mbalaanu wasifa yi loolu la fi yàlla am loolu la fi Seexu Tijaani am loolu la fi Seexul Xaaji Maalik am loolu la fi Seexul Xadiim am loolu la fi ñeneen am kon nag kaddu yi ñuy wax e, sunu kàddu duñ ko guddal kaddu cant rek lay doon ndax li doon farata bi def nañu ko te mooy objectif bi moo doon ñu daje jooxe sunu farata ci tariixa bi ñun te mooy sunu xadaratu aljumaa leneen li ci desaat nii nag kaddu ndokkeel la waaye kàddu ñaaxaat la it nag pour ngeen gën koo fonk laa li shay'in axar amul leneen loolu rek moo doon objectif bi hëdëf bi yëpp yëpp moo doon sunu farata bi def nañ ko waaye bi ci desit nag ñu fàttalante rek ndax invité yi ñëw ñu sant leen gërëm leen yéen ñi doon taxawee li ñu ñaaxaat leen ngeen gën koo soppaat gën koo wat xel bañ ko folklore def ko ruuxaniyan yëg ni kenn rek lañ fi teewul muy seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax nee na xadaratul jumaa cheikhu tijaani nee na boo koy commencé rek sama maam ruuxam teew na bokkut ak wasifa wasifa soo koy def ba ca juróom-ñaareela peru jawharatul kamal ruuxu cheikhu ruuxu cheikhu tijaani ak maamam sallallahu alayhi wa sallam teew nañu waaye ya xadaratul jumaa sooy ubbi rek Seexu Tijaani ruuxam ak ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teew na bokk yi ku am lu mel nii allahuma amin bokk yi ku mel nii lu mel nii ku ko am nga yëg ni kon am nga lu rëy toogaal ak rasulullahi toogaal ak Seexu Tijaani toogaal ak mag ñu baax ñi xulafaa yi loolu cir gënu koo rëy te cër ëpp ko kon nag ñoo ngi leen di dénk yéen ñëpp ngeen gën ko fonkaat ngeen gën ko bàyyiwaat xel ngeen gën ko soppaat ànd ak kii ñu leen booleel ngeen liggéeyal xadara liggéeyal mag yi liggéeyal diine ji te mooy Seex Muhammadul Fatah sunu doomu bàyyi la sunu xarit la sunu waxtaanukaay la ñoo bokk mission bii nag waaw ñoo bokk mission bi parce que ñu nit ci biir mission bi la ñu bokk waaye yàllaa yi gi dogal ci loxoom la ko sëriñ bi teg ñëpp ànd ak moom pour liggéey ñu ànd ak kilifa yi ñu am ci Tiwaawan liggéey kon loolu fa tabaarakallaahu moom rek mooy objectif bi yal na yàlla fay ñëpp yal na yàlla taxawu ñëpp maa ngi delluwaat ziyaare mbooleem muqaddam yi mbooleem kilifa yi mbooleem julliti yàlla yi fi teew mbooleem autorité yi fi teew ñoo ngi leen di delluwaat di leen ziyaara nuyu daairatu xadaayiqul fadail bu mbakke Bawal bu Sëriñ tubaa macha allah waa daaira xadaayiqul fadail ñoom it teew nañu ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di jox seen cër ñoo ngi leen di jox seen wàccuwaay di leen tatagal ci seen barab ci seen jotaay ci seen mbooloo ci seeni mbokk ak mboolem dawaayiru Cheikhul Xadim yi nga xam ni dañoo ñëw far far di di yan ñoom ñépp nuyu nañu leen jox nañu leen seen wàccuwaay yal na yàlla fay ñépp ñi nga xam ne ay invité lañu tabaarakallaahu jóge ci euh, aafax muxtalifa yi ñëw accompagner ndaw ñi yal na leen yàlla fay eh, man nag damay wax ni lii benn xeer la Cheikh Fatah bu sànni jëm ñaari picc sama kàddu ndax keroog bi njaboot gi ñëwee di seet si Serigne Sidi Ahmed yàlla dafa dogal sëriñ bi yónni ko ndakaaru mu ni ma naa leen recevoir ci këram mu recevoir leen ma génn sëriñ bi woo ma ne ma kon nag xam naa ni bu bis baa su may dem ñooy ànd ñu toog bërki démb yoon bett ko mu woo ma ne ma yoon bett na ma mën ak sëriñ bi kon wuutuñu fa mën ak sëñ Moustapha wuutuñu fa man ak xadara bi yëpp nga ànd ak Cheikh fataax ak oustaz Cheikh Tidiane Diop ngeen am ak Mansour Seck ngeen dem wuutuñu ñun ñëpp kon loolu euh, dafay nekk dama jàpp ni daal yàlla am na lu mu namm ci sunuy ci sunuy diggante ñu daje faak waa Tiwaawoon pël keroog ka àndal muy imaam ba mu ni leen man Mbàkke laa juddoo ma ni leen yéen da ngeen a war a nekk kon ay zimu ci ab naawul xadara pour liggéey ndax li leen boole fii du asaar loolu it fa tabaarakallaahu ñu sant leen bu baax a baax ci boobu boobule taxawaay ñaana leen yàlla yàlla na leen yàlla defal tawfiix yal na leen yàlla defal taysir Cheikh Fatah kàddu yooyu daal lañ doon yëkkati amaama cheikhina hada Cheikh euh, alhamsa atijani asharif alhamsa atijani barakallahu fiika yal na yàlla dolli xéewal yal na yàlla dolli barke Fatah sëñ Asan mii de wàcc na ndax wax na lan moo tax lan mooy tax nit jëriñu ci tariixa bi te mu seññ ci nit nag ki bëgg nga mel ni mu mel walla yaa bëgg mel ni mu mel mu ne man de moo ma may nii la def ba am ko kaay def ko wàcc na am déet jaajëf toujours moo ne leen ne xalifa Babacar wàcc na danaan laazim lawazimahu takfi li taalibiha min almanafi fi dunya wa oxra nee na li tax nit di jariñu ci tariixa bi mooy nga saxoo laazim bi kon wàcc na yow wàcc nga loolu rek lañ yaakaaroon ci yow nañ fonk jàkka yi nañ fonk xadara yi nañ fonk wirdo yi nañ jël tariixa bi wàcc nga ñun nag ñu ngi leen ñaanal yéen ñaanal ñu yàlla may ñu xel ak njub xel ak njub yàlla koy maye te wax na ñi mi ko may nan la ñuy mel alladina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna axsana ulaika alladina hadahum llah wa ulaika hum ulul albaabi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu on njaaraam ndax innama yataqabalu llahu min almuttaqina kon na kii ñaaw lii nag kàddu imaam la ñoo ngi leen di jéggul